asalaamaaleykum mbokk yi teel a gaawu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci rajab muy weeru ndeyu di juróom-ñaareelu weer ci atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonente bi salallaahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ci weeru février ci atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñeent ñaar fukki fan juróom-ñeent bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la kon tey ci gaaw bi rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca watu li ñu ciy teetare ak wàccandiku moom gaawu mooy ku ca sangu ku ca fóot ñaanu bis bi yow yàlla yàlla nag ma setal ci ay bàkkaar ak i njuumte allahuma tahirni min addunubi wal xataaya allahuma tahirni min addunubi wal xataaya xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku julli te jàngoo faatixa amoo ak julli xadiis bi buxaari ak muslim nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa solaata liman lam yaqra bi faatixatil kitaab rawaahu buxaari wa muslim waxtu julli yi suba waxtu na dana tàbbi 6 heures 16 juróom benn waxtu yu tegal fukki simili ak juróom benn tisba 13 heures 48 benn waxtu bu tegal fukki simili ak juróom ñett takkusaan 16 heures 48 ñeenti waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom ñett timis 19 heures 12 juróom ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak ñaar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 amin